aca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delloowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontante ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di def saa su ak kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dalal naa la ci biir site bi rek fas yéene naa ñu waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax. atia yaakaar naa nag jëmm ji ngeen di gis keneen la ñu présenté te ba mu des moom ndax doon na ko ràññeeku ci biir site bi rawatina àddina wërngal ka bi nga xam ne safoo nañ ko ci ñaan yi nga xam ne saa su nekk mu ngi ciy def résultat yu am solo waaye rawatina paj bi nga xam ne am na ci résultat yu màcc ayib kooku mooy saltige Ndoye Djiné tey nag dinañ yaatal ci xam-xam ci ponk yu bëree bëri waaye nag tey ku déglu rek di nga dégg xam-xam waaye tey nga dégg fii révélation yu am solo rawatina ci actualité bi nga xam ne saa su nekk dañ ci xuus yaatal ci bu baax a baax mu di xew-xew jamono ni ma ko waxee saa su nekk. atia saltige laata may ñëw sama biir programme damay bàyyi nga nuyoog mbokk aska bi. Uh, aousubillahi min alcheytan irajim bismillahi rahmanirahim qaala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani uh, sëriñ bi ñu ngi leen di ziar suñu cheikh uh, di ziar mbokk internet yi di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm di waxit ni allahuma inna nasaluka min kulli hammin farajan wa min kulli diqin maxrajan min kulli xasrin yusran min kulli fahshatin sitran wa ala kulli xeyrin sabilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin di leen jaajëfal suñu cheikh jërëjëf euh, saltige Ndoye Djiné ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw euh, sene set yooyu tànd ak dal ñu ci kontaan bu baax dinaan la dal jàmm comme ni ma koy def ak say naataango noonu la fas yéene ñu doxale ko waaye lépp dañ koy wér ci xam-xam ngir nga xam ne saa su nekk dañuy taatan dañ ciy jële di njëriñ acca dinañ waxtaan ci juróom-benni ponk waaye juróom-benni ponk yooyu dinañ ko xaaj ñaari pàcc dinañ yaatal ci ñaan bi nga xam ne yaa ngi ciy def résultat yu waaye dinañ dellusiwaat ci pàcc bi nga xam ne kenn werantetu ko xew-xew jamono du lenn ren mu di coupe du monde bi nga xam ne dëgmal nañ ko ni ki lundi war nañoo daje kii di Pays-Bas waaye nag ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla nañ ci yàlla may ndam bu sedd guy loolu am na lu mu ci bëgg a yaatal topp leen ko ba mu jeex waaye combat bi dox kii di Boy Niang ak euh, Balla Gaye 2 am na lu mu ci gis du fekkee ne bëgg ngeen xam mooy daan topp leen ko ndax am na luñ ci war a yaatal politique président Ousmane Sonko ak ni muy doxee euh, dinañ ci yaatal bu baax a baax. atya tey nag daam foo xam ne foofu laa bëggoon ñu tàmbalee mu di lan mbiram cat. olof Njaay nee na su mu semmal wala mu topp la ba ci sa biir bàmmeel ñun nag yàlla ci yàlla musal bismillah. waa euh, sëñ Cheikh loolu moom euh, lu dëggu la man naa ni cat moom daanike mooy ndeyu musiba yi man ni may waxee ni sàngara mooy ndeyu bàkkaar cat mooy ndeyu musiba yi cat bu nekkee ci yow. pour rab jàpp la day yomb. pour seytaane jàpp la day yomb. pour ñu liggéey la jàpp la mooy ubbil bunt lépp lu bon cat moo koy ubbil bunt. cat nag euh, mën naa ni ndaw la gën a sonal. surtout ndaw lu nekk ci yoon beneen bi ci des aussi yonent bi biñ ko jéemale ba sonn mënul duñ ko ko dañ ko doon jéem a catu ci wañ yaakaadu ci la wàcce wañ yaakaadu lañ naka farol yes doxon bi lab saari moo tax dama koy faral di wax dama naan leen wañ yaakaadu euh, bokk na ci kaaraange yi gën a mag parce que xam nga fan nga koy xamee c'est-à-dire euh, gis nga sniper mm-hmm. bi nga xamante ni dafa yor kii di la diire mm-hmm. bu la gisul du la du la du la du la jam taw yi yaakaaru kaaraangeem daf ci bokk loolu maanaam day muur bëtu saay-saay ba du la mën a gis même même euh, na ma yàlla baal euh, koo xamante ni tey sa noon la. wala koo xamante ni tey daf lay yàqal wala yu demee noonu même sëriñ. sëriñ sax bu gisul say mbir dëgg mun laa yàq. moo tax gis nga euh, wayn yaakaar na ko nit ñi fonkaat bu baax sëriñ tey bu lay bu lay yàq dina xool sa tabax dina xool sa ruuxaan dina xool say mbir dina xool foo bokk ba pare. Mm-hmm. léegi nag tey bu gisul yooyu pour mu yàq la mën na mën na jafe. moo tax wa in yaakaaru na ko nit ñi farataal di ko jàng ko mën di ko def soixante-dix fois baax boo ko mënul it nga koy def onze fois waxtu wu ne moo tax da lay dimbali ci lu bari lu bari bari bari am na nag ñun nag bu dee ci wàllu cat liñ ci liggéeyee wañ daf ciy bokk waaye it daf ci ànd ak yeneen i garab yoo xam ne ay xaatim yu muy àndal yoo xam ne boo ko sangoo trois jours da ngay tàqali ko moom te li nga xam li nga li lay won ni la cat baaxul billahi wal kitab man càngatu cat bu ma la ko joxee jour bi nga koy njëkk sangoo di nga sentir sa yaram loo xam ne musoo ko yëg ma ni li lay won ne la cat baaxul. billaahi wal kitaab man garabu cat bu ma la ko joxee fi nga koy sangoo jour bi nga ko njëkk a sangoo di nga sentir loo xamante ni yow mosoo ko yëg sa yaram maanaam lii wane ni cat baaxul te bu wàccee sa yaram ni ngay féexee ak ni ngay doonee beneen nit te tey na tey koy dimbali maanaam ñu ci bari ñoo xam si ne dañuy ñaan lu ba sonn ñu nan leen raba leen jàpp nangam nangam fekk cat moo nekk ca euh, ca mbir ya di ko yàq te fii ak cat mi ngi ci yow mm-hmm. nit mënu laa ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal ba say mbir li ci nekk rek mooy mu dindi cat ba ba pare waaw dindee cat ba pare li ci des nag mu doog laa mën a dimbali incha allah acca jërëjëf euh, saltige Ndoye Djiné jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga doon def sànq am na solo acca dañuy dox euh, wéyal yaatal bu baax a baax dama ñëw ci mbiram noot noot nag suñ ko waxee kilifa bii ma jaakaar lool keneen lañuy ñuy waxati waaye am na loo xam ni borom dénk na ko ci ñu ñëw ci noot. Euh, waa noot day damay faral di wax ni gis nga kii Aliou Khanjar dañ koy wax daa mi ngo kii moom képp koo xam si ne dañ la naan dafa mën a noot te fekkoo ko ci moom ne kon nootam des na waaw buñ lay nootal ni dëgg ah bu fekkee nag fañ fay nga ñu lu ko jar ndax liggéeyu jinne la billaahi wal doonul loo xamante ni caaxaan la cest à doonul ñëpp nga koy defal te mënoo koo defal ñëpp parce damay faral di wax ni nit ci la jox tey ji weexal woo xam sin sarax biñ ci mën a génne saraxu ginaar la tey mënoo ko ñaanal ñaan goo xam sin tey boo ko defee saraxu nag ngay génne wala wala xar <laughs> mag moo tax kii moom képp koo xamante ni tey dañ la ciy defal noot buñ la ci defalee liñ la ciy defal ba dugal ci tur yi buñ la ko wir dalee ñetti fan ci kàttanu yàlla moom kooku moom leneen la ñuy wax waaye loo ko wax dina ko def moo tax wàllu noot am na ci beneen boo xam sin dañ koy faral di liggéey pare jox ko xaj am si ne xaj bi di bëggee borom ne xaj bi toppee ndawal noonu la toppee waaye nag waaye li ci nekk moom mooy euh, cest à bu ci nekk ki nga ko war a defal parce que daf ci am nit ñoo xamante ni mën nga leen a def nootu xaj boobu du leen jàpp mais tey bu fekkente ne def nga leen ci wàllu safara daf leen di jàpp c'est-à-dire noot bu nekk ki nga ko war a defal parce que da ngay toog calculer xadat bi nga xool xadat bi xool ki yëru xaanam xool tamit ban heure nga koy jàpp parce que tamit nit daf ci am euh, xaal yoo xam si ni bu ci nekkee munoo fexe ba jàpp moo tax ngay faral di gis nit noot noot ba sonn dem ba ni noot amatul fekk kim dajal moom moo xamul li ñuy nootee waaye bu fekkente ne xam nga nit ki boo koy noot da nga koy xool ba xam laaj ruuxaan bi diw lu mu nekk. Mhm. day nelaw day lekk day naan day sangu am na koo xam si famille sangoo koy mën a jàppee am koo xam si buy nelaw nga koy mën a jàpp waaw. bu fekkee jege jege xam. laa ilaha illa billahi wal kitab mooy së maanaam sëriñ bi moom mooy xool xam man su ma bëggee xam nit ki lu muy def dama koy xam nit ki fu mu toll mi ngi ci duus wala mi ngi ci nangam wala mi ngi ci nangam nga xam ko léegi boo ko xamee nag da mën ki toll loolu jafewul boo nee aji bu nangam nangam nangam nangam wax dala koy jaarale wax loog c'est-à-dire bëgguma tudd tur dama ko daan faral di def <laughs> waaw mi ngook <laughs> mi ngoog loolu moo nekk ci wàllu noot waaye noot moom képp koo xam si ne mooy ki nga xamante ni dafa bëgg ci euh, ci nit alal mooy moodu moodu bi nga xam si ne dafa nekk Europe bëgg ci tubaab bi xaalis wala loolu du ma ci waxati sax parce que xam na ñi ci ñi ciy jëflanteel xam nañ kooku moom képp ku am soxla noot moom dikkal ci kàttanu yàlla bala sept jours yi mat da ngay gis résultat incha allahu taala waaw jërëjëf jërëjëf euh, saltige Ndoye Diné am na solo ci ponk boobu nga xam ne moom lañ doon yaatal eh gars ni ma ko waxee su nekk bu ma kenn di woo ci sama numéro euh, ku ci mel ni saltige Ndoye mu ngi noonu numéro ñu ngi noonu af si suufu barre d'écran bi yow contacter ko rek dina jëflanteeg yow ba sa sedd guy ndax doon na koo xam ne ah, li di note de mën nañ koo bàyyi moom de mu ngi ci def résultat yu maj ayib waaye damay ñëw yaatal bu baax a baax ñëw ci mbiram rab ci waaye yéen sëriñ si ngeen rab de rab yan gàllankoor la mën a yóbbe nit ki ci boppam. waa xam nga nag dafa bari ci jamono ji man dama koy faral di wax dama naan jamono bii ñu nekk maanaam jamonoy rab la dafa favorable pour rab yi liñ bëgg a def nit ñi ñu mën leen koo def hmm. parce que dafa fekk jamono boo xamante ni nit ñi doonatuñ dara maanaam ay xaay lañ ñun doonatuñ africain yu wóor. di aaru ci suñ ci li nga xam ne maam yi moom lañ fi bàyyi woon hmm. doonuñ tamit jullit boo xamante ni bu wér la doonuñ tubaab doonuñ dara ñun moom dañoo nekk ci digg bi rek looloo tax te rab yi nag loolu dafa favorable pour ñoom ñu mën a def liñ bëgg a def beneen bi ci des aussi ñàkk léemu nit ki ñàkk ànd ak njàpp yooyu yëpp da koy faral di def ak tamit ñàkk fonk la sa maam nekkoon boo demee tamit ba bëgg koo bàyyi tamit nga xool koo xamante ni xam na wàllu maanaam wàllu xam wala yu demee noonu. bu mm-hmm. jéem laa tàqaleeg moom mais bu fekkente ne say maam dañoo am contrat yu ñu euh, signé woon benn jinne cest à moom mu lay aar. day am loolu day am. bari na ci ci ci wàllu suñ maam yi ñoo xam si ñu ci bari dañu signé woon ak contrat ak ay jinne waaw mais nag dama jàpp ni cest à nit moom bu ñu demee ba ni xadd karam naa ba ni wa hamalnaahum fil barri wal bahri nit dara waru ko të waaw dara waru ko benn contrat boo xam si ne da nga ko tënkoon yow ak jinne te yow yaa boo ko bëggee dagg mën nga koo dagg am na nag ci aaya yu ñu koy daggee xul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin yooyu yëpp dañ ciy faral di dagg contrat ak yeneen ak yeneen yeneen beneen bi ci des aussi daf ci am ñoo xam si ne dañuy rab ñoom si dañuy tooñ. lan la ñuy tooñ rab. xam nga yu ci bari boo gisee mag ñi dal la ko tere yu demee ni que daaj pont guddi yu demee ni que tuur ndox mu tàng wala ndox mu sedd lool nga koy tuur guddi yooyu yëpp des fois mën nga ko tuur fekk da nga da nga ko tuur ci rab wala nga tuur ko ci njaboot rab am ñoom sin tamit dañuy conduire feel doomu rab wala yu demee noonu loolu lépp day faral di am léegi nag yooyu li koy indi mooy doomu aadama bi c'est-à-dire euh, jullit mm-hmm. du ma jullit kase sax mais doomu aadama foo war ngay léemu boo doon toog fii rek ngay conduire ni bismillah tey jii nii di nga conduire ba wàcc tey doom mbëkk doo rab wala yàlla dina la fanqal loolu lépp dañuy faral di wax ni bismillah ku munta aar dara mun la aar waaye nag dafa jafe looy def wax ko dafa jafe waaw beneen bi ci des aussi maanaam di faral di ñaan aussi faral di ñaan jàng alquran muslu ki nga xamante ni gëmul alquran tamit mu dem di ñaan di muslu ca la nga xamante ni moom moom la gëm waay wàllu rab moom képp koo si ne dal na la ci kàttanu yàlla ñëwoon ñëwal buñ la joxee liñ lay jox da nga koy gént sax ni muy dañee ci yow daf lay bàyyi wala mu dee da nga koy gént ni muy dañee ci yow te boo ko sangoo jour bi nga ko njëkk a sangoo di nga xam ni sangoo nga loo xamante ni lu baax la ci rab ndax wàllu rab c'est-à-dire gis nga saafara biñ lay jox dafay mel lu koy lakk léegi nag ni muy def rab bi yow war na la ko mën a def war nga ko mën a sentir moo tax garabu rab boo ko sangoo bu dee bu baax rek di nga ko xam waaw mi ngoog acca euh, di nga ko xam ndax du dee bu baax fa mu daaneele kook mooy saltige acca ci mbiram rab ñi nga xam ne am nañ tawat boobu wala sonal na leen fu nekk euh, nee nañ fa naam dramé ñu nga fay faju fexe leen ngeen euh, jëflanteeg saltige ndooy jinne acca yaa xam nga nekk ci biir réew mi wala bitim réew soo ko woowee rek dina jëflanteeg yow ba sa sedd guy acca waaye dama ñëw ci yeneen yoo xam ne dafa sonal nit ñi dañ koy def te gënalu leen mooy ñi nga xam ne dañuy tux ak ñi nga xam ne dañuy naan sàngara yaa xam lam ci mën di doon ak ñi nga xam ne dañuy njaaloo te yii nii da leen a metti bëgg nañ koo bàyyi. waaw xam nga damay faral di wax ni cest à doomu aadama bu defee dara ba pare toog jooy loolu gën a lu ko def li muy def ba pare toog di ko réccu nga xam ne kii lii muy def tayetu ko daf ci am yoo xam si nag boo koy xas ba def mbiru seytaane daf ci rax ndax damay faral di wax ni seytaane des fois dafa am ambassadeur ci biir nit. maanaam boo xam si moom moo koy représenté boo xooleel mel ni waswas xanaas ñoom ñooy laam ñooy nekk ci biir nit ki mm-hmm. tey jii nii bu seytaane bëggee lu bon wala bëgg a manipuler nit ki mm-hmm. ñooñu lay yebal ñoom ñoo ko représenté ñoo ko mm-hmm. représenté léegi nag euh, doomu aadama des fois dina faral di tux wala muy naan sangar wala muy foye boppam fekk loolu moo ci rax léegi nag li ci nekk mooy euh, c'est-à-dire foog nga dem xool koo xamante ni xam na wàllu baat xam na it wàllu lii tàqale nit ak yu bon yoon jëfin yu bon yooyu ñun nag ñaar moo ci nekk mm-hmm. daf am koo xamante ni li muy def wàllu zahir moom moo ko lii dafa topp ay àndandoom am ci keneen koo xamante ni li ko waral mooy wàllu chayatini wala boog wàllu liggéey moom moo ko waral dañ ko taqalee ak lool comme ci mënti doon boo dikkee liñ lay jox day dem ba bul xeeñe da nga koy wàccu te billaahi wallahi wal kitaab man résultat yi maam ci wàllu wàllu wàllu faj ci wàllu toxak yu demee noonu billaahi xaw ma nu mu xaw ma sax nu mu toll te man loolu mooy sama fierté nit ni ma sëñ bi man kat bu ma bàyyee cigarette gannaaw yàlla yaa tax ndax yàlla rek moo fi nekk su ma bàyyee sàngara gannaaw yàlla yow la su ma bàyyee masit bewu gannaaw yàlla yow la même masturbation ki xam si ne da koy def bu dikkee am na xaatim bu ñu lay bindal ci kàttanu yàlla da koy bàyyi. même bu dee rab moom moo la koy def loo incha allah. solo acca yéen ñi nga xam ne yooyu yëpp doon na tawat ci yéen te ngeen koo bàyyi fexe leen rek ngeen jëflanteeg moom ndax euh, ni ma koy waxee ah du dee tuut na ci jëmm ji leen di ndaw euh, doon na ko xamante ni mbiri mag la làmboo ndax euh, xam-xam bi mu ngi fi. to saa su nekk mu ngi def résultat am solo atia waaye fa may ñëwaat yaatal bu baax a baax njëkkanteeg waxtu wi dina bokk ci mbiram listixaar su ma ne xaar nag ñenn ñi di koy wooye lii di seet yaa ngi ci def résultat yu màcc ayib ñu del si waat ci waaw xam nga listixaar dafa bëri ay façon dafa am yoo xam si da nga koy bind fanaanoo yoo xam lay doon loolu nag li koy waral des fois day doon loo xam si lu nëbbu lool lay doon nëbbu lool maa ngi ci doon waxtaan nag benn waay waa xamante ni mi ngi ci réewu naar yi mu ni ma dafa am benn seen benn alal joo xam si ne nee na seen maam ñooñ foofu bi muy kii maanaam daf mu ni or ju bari ñu ciy waxtaan ak yooyu ma ni ko man de bu fekkee ne nangu ngeen maa fay bu soobee yàlla mën na maa sax bañ a dem fii laay toog ni leen mi ngi bërëb tel dem leen ngeen jël bi kon xam-xam am na de. bien sûr même ki nga xamante ni tey loolu nag daañ ko liggéey tamit ci picc waaw maanaam day tey jii nii dañuy jàpp lu ñuy jàpp jat ci liñ ciy jat fu mu taxaw rek fa ngay xam ni fa liggéey ba nekk yooyu dañ koy faral def beneen bi ci des daf ci am koo xam si ne digganteem ak soxnaam la bëgg a xool wala digganteem ak ki muy bëgganteel bëgg koo takk kooku nag foog nga xool foog nga xool seen i tabax ba xam ànd na yooyu yëpp da nga koy xool loolu nag foog nga mën a euh, foog nga mën a calculer nga xool euh, xal mu tabian waaw adat yëpp da koy xam beneen bi ci des aussi daf ci am ñoo xamante seet seetu sondel nga leen di seetal am ñoo xam si seetu kurus seetu sondel ñu jotee li ñuy jot aji bu yaa nangam nangam nangam nangam wan ma mbiri diw da ngay gis ci sondel bi da nga ciy gis am sama benn xarit. waaw mbiru jinne la am naa sam benn xarit maa ngi koy nuyu <laughs> ñoo fowandoo doy tiim sondel bi na ma yow nan nga mën a gisee ci sondel bi taman gis maa ngi koy ziar bu baax <laughs> Mouhamed maa ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla mu defal ko tawfeex waaye moom euh, seet moom yiñ ci yor bari na macha allah waaw ah, mi ngoog acca kon sama gars yi na xel daal te jàpp leen ne saltige ndooy jinne borom jinne yi euh, li ma war a waxtaane ci lépp ci actualité jàpp leen ne dinañu wax sport gi sport Sénégal nu muy toll match bi ndax ñun ñooy dóor wala duñ dóor ba yeneen ak yeneen dinañ ci yaatal bu baax a baax bu leen ko yàkkamte top leen vidéo ba mu jeex acca waaye dama ñëw ci feebar bi ñu naan hémorroïde cey laa ilaha illallah sonal na nit ñi de waaw hémorroïde de moom hémorroïde dama koy faral di wax dama naan leen hémorroïde man ku ma kum dal te munul dañ ci yow man daf may jaaxal sax parce que man hémorroïde sept jours laa la koy traité même bu dee bu génn. fan amul sëriñ buy ñemee taxaw naan hémorroïde dama koy faj ci juróom-ñaari fan kenn ñemewu ko te billaahi hémorroïde même bu fekkee dafa rax ngelaw te hémorroïde am ñoo si day rax ngelaw moo tax ngay gis nit ki faju ba sonn du dañ parce que des fois day rax ngelaw ngelaw seetaane moom moo ci rax léegi nag liñ lay jox bu soobee yàlla diwal rek nga xool balaa juróom-ñaari fan yi di mat nu muy nu muy mel. waaw bu dee bu génn bi liñ ciy diw loo ciy def bu bi nga xamante ni dafa nekk ci biir tamit luñ lay jox la nga koy naan ci kàttan yàlla kooku moom même bu dee bi nga xamante ni da nga koy trois jours da ngay commencé même dem euh, gannaaw kër toilette da di dem euh, toilette bu dee kii doon lekk du rees it da ngay commencé di lekk mu rees te air boobu da ngay commencé gis ni day dañ incha allahu taala waaw am na acca kon loolu lañ amoon di saltige Ndoye lépp ñu wéer ko ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax acca waaye fi may jeexale bokk na ci xew-xew jamono di actualité ni ma ko waxee saa su nekk acca ah, ni ki leen di war a joué de jàkkaarloog ah, kii di pays ba hmm, lan nga gis ci coupe lan nga gis ci coupe du monde bi d'abord. Ah, lenn rek di ñaan rek di wax képp koo xam si ne mën nga wa indi yaakaar nga def ko ndax Sénégal dafa doon ba dëkk boo xam si ne dëkk wax la. te ko des fois nee naa euh, bari na sëriñ boo xamante ni tey da ngay gis lu dugg euh, maanaam lu xew mu wax ci fekk moom xamul ni làmmiñam baaxul am na ci ay sëriñ am na sëriñ yoo xam si moo tax des fois bu ma gis ñuy tudd ay doomu jàmbur te loolu dafa baaxul jeex na ñu ci ñoom si ni ñu warul wax lañ te bu doon jamono yi baax dëgg dañ leen di tere ñuy wax mais dañ ciy gis ñoo xam si ni dañ koy bàkkoo sax fekk am na ci ñoom xam seen làmmiñ moo baaxul moo tax dama naan xëy na état bi du ci man dara parce que liberté d'expression wala yu demee noonu waaye daal nañ fexe daal di def way yaakaar yu bari beneen bi ci des tamit buñ mënee génnee naat sarax yi naat nañ ko def nañ ko def man lu ma ko ci coupe du monde. waaw waaw waaw jëmale ko ci wàllu ci wàllu équipe nationale ñu génneel ko sarxu naat ñu def ko waaye beneen bi ci des aussi buñ ko manee ñu jënd ceeb bu bari ñu séddale ko néew doole yi ndax liñ bëgg buñ ko bëggee am ah, na néew di doole te seen xol bëgg waaye nañ ko séddale ci ci daaray alquraan yi waaye it nañ ko séddale néew di doole ñu fexe ba néew di doole yi ñëpp ñaan yàlla mu ñu defal jàmm beneen ci des li may faral di wax man moom damaa xam yàlla xam ngoo xam si ni ñemewuma di ko jiitu ci maanaam di ko jiitu ci décision parce que yàlla dañuy faral di wax ni paaka kenn ko jiitu ci mbaram boo ko jiitoo rek daf lay jam doguma la garaawut quoi tey tey saltige ndooy kii waxut tey jinne yi laa indiwaat ñoom laa léegi jinne yi laa dalal nii ñooy wax ak man dinañ ma wax ndax Sénégal mooy dóor Pays-Bas dinañ ma wax score bi nu muy toll sant yi. xam nga xam nga même bu dee ñoom ñoom nga dalal parce que ñoom moom. ñoom ñoom moom cest à am nañu euh, ñoom am nañu kilifteef ñoom lu ci mën di xew balaa ñuy kii man maay joxe man maay joxe man maay joxe ndigal moo tax yu demee noonu même ci wàllu jinne yi Cheikh est-ce que xam nga ni jinne wala bu mu ci mënti doon bu fekkente ne jullit la billaahi am na ci loo xam si ne boo ci bëggoon a dugg sax mu xool xam si lii méngoowul ak diine moom moo la naan bu ko def maanaam di siiwal wala di bàkkoo yenn yi man yu ci baari nit ñi dañ ma ciy laaj dama naan leen man am na yoo xam si ne du ma ko def. Ah, kon léeg-léeg ñu woon nga bëgg a wax ñu ne la bu ko wax. waaw loolu day am maanaam même bu ci wàllu woolu sax man man naa ni ñoom ñooy sama xarit te dañ may dimbali ci lu bari même ci wàllu yar <laughs> wallahi dañ lay ci dimbali. léegi damaa bëgg nga wax ne leen sëñ Cheikh nee na ndax xam naa nii may wax ni yaa ngi dañoo bëgg xam ñun match lënd bi ñoo koy gagné wala même doo waxut sax Sénégal mooy gagné temps. waaw loolu loolu moom loolu moom du du lu ñuy mën a wax ci kaw loolu moom du lu ñuy mën a wax que nga lu tax xam tax c'est-à-dire man mënuma gëm benn man nit day war dara da koy war a dal wala yu demee noonu ñu dikk ñu ni génneel sarax bi wala defal ñaan bi yàlla fànq te nga xam ni Sénégal am na ci ay nit yoo xam si ni yu soxor ñoo xam si ni yéene wuñ dara équipe nationale ñi ngi ci suuf di jéem a yàq léegi nag ñooñu moom li ci nekk mooy ñooñu balaa ñuy jug ci kenn nañ jug ci ñooñu parce que man dama naan ku bon moom mu dee sax moom moo gën muy dund parce que am na ci ñoom juddoo ci réew màggee fa yaroo fa waa jàngee fa te nga xamante ni lu yàqu nga ni yow moo tax am na ci sarax bu am seen xam naa bu ma wéetoo gaay dinaa leen ko jox bu am seen ci béy lañ koy def ray ba pare am na saam yu ñu koy def am na loo ciy jàng da ngay fexe ba boo paree yàpp boob da nga koy denc bis bu nekk da ci ciy jàng li ñu ciy jàng rek boo paree kooku moom ku ci néew bopp day dee ku ci néewul bopp tamit maanaam day yàqu ba faaw incha allah taala parce que ñu mel noonu jar nañu defal lu bon waaw. dama lay bàyyi foofu mais laata ñu fay génn ndax xam naa foofu doo fa nangoo yaatal waaye nag xam naa ay moom dinañ la wax ndax ñun dinañ ak demi final quart de finale sax duma ko garaawul quoi euh, même wala dinañ final ndax moom damay ñaan ñu indi ko quoi mais day jafe de. wallaay wallaay sëñ Cheikh cest à man li ma lay wax rek moo ci nekk man moom yàgg naa faral di wax nit ñi gis nga koo xamante ni man bi may xale man dama daan toog nii toog nii laa la wax de billaahi nit di ñëw moo mën a xam ne nit kii mi ngi ñëw diw mi ngi ñëw billaahi wal kitaab damay toog nii gis nga yàgg naa ko am na ci benn xalif général boo xam si ne bi mu gaañu nii laa jàkkaarloo ko xam si ne ci ci benn kilifa diine boo xam si ne làqu na nii laa jàkkaarloog moom muy yooyu sol lu weex tàll ci ëllëg sa lañ ni ma diwkat làqu na moo tax maanaam yu dem noonu man dama dem ba man ndamoo ma ko sax man dama jàpp ni cest yooyu du du du du ndam du ndam li ci nekk rek mooy mooy li ñu war a defal équipe bi nañ ko defal te man buñ ci jokkoo buñ ci jokkoowul yëpp li ñu war a def danañ ko def mais nag. sarax si lan. waa sarax bi bokk na ci wàllu naat ceeb tamit nañ ko jënd. seddale ko ci daari beneen bi ci des fi may tëjee muy ci wàllu samay garab. pour nit ñi mën a xam ne man rek man maay joxe samay garab amu ci keneen koo xamante ni day joxe samay garab maanaam amul kenn koo xamante ni da koy joxe bu leen dem fenn ñu leen di nan leen man maay joxe garabu ndooy wala yu demee noonu bu mu ci mën doon boo ma woowee ma jàpp insisté lu wala tamit nga bàyyil ma vocal incha allahu taala bu ma ma libre rek dinaa ko lire ndax bu fekkonte ni foo ma woowee jot ma kon doot mu faj benn aaju ñu ngoog. jërëjëf at déedéet tëjëgoo fa may jeexale bokk na ci combat bi dox ci Boy Niang ak kii di Balla Gaye ci jinne xam bi yoon de dinañ ko dinañ nangu moo wax de dinañ ko wax de kay daan. waaw xanaa len rek di leen ñaanal rek ñoom ñaar yàlla defal leen jàmm ndax eh, ay doomu Sénégal lañ te it man moom du ma d'accord nit ki investir ay millions ci combat am nga koy yàq loolu moom ñemewu ma ko sax xalaatu ma ko mais nag ñoom ñaar képp ku ci njëkk a ñëw dinaa la wax sarax bi xam si moom ngay def pour daal waaw ku ci war ci am loo xamante ni des fois am na ci combat yoo xamante ni day toll foo xam si ne ku ci ëppalee sarax rek yow yaay daal. kan ma waxati woon sànq mooy mooy ki nga xam ne moo gën a jekku kanate waaw <laughs> ah, loolu loolu moom mbiri suuf la mbiri suuf la kim naa daal ku ci njëkk a ñëw dinaa la wax sarax boo xam sin ci kàttanu yàlla boo ko defee moom victoire bi sa kaw lay fekk ci président Ousmane ak ni muy doxale rawatina dossier bi nga xam ne du doon pënd la mën ne ba léegi wuréegul coow li bëri ba léegi waa xanaa di wax rek ñu ñaanal ko jàmm ñu ñaanal ko jàmm te it di wax ni Sénégal moom jàmm lañ fi soxla jàmm lañ ci soxla muy Sonko muy Macky Sall muy keneen ñoom ñëpp ay doomu réew mi lañ lu ci mën ci xew rek lépp nañ ko teg ci jàmm ak ci yar ak ci dal incha allah taala ki ci war a nekk président ëllëg kenn mënu koo teree nekk ku ko warul nekk tamit eh, kenn mënul tax ba nga nekk kon di leen ñaanal ñoom ñëpp muy Sonko muy Macky Sall ku ci nekk yàlla na nga am jàmm ba lii yéene ci réew mi ci lu baax yàlla defal la kattan ba nga mën koo def waaw loolu daal moo ci moo ci moo ci moo ci nekk moo ci nekk mi waa xanaa rek euh, di sant di sant suñuy mbokk di wax ni ndombo yi amaat na fi ndombo yi nga xam si ni mooy dox ci wàllu cat ci wàllu kaaraange ci wàllu ndawal buur ak ñi nga xamante ni dañuy nekk Europe di daw euh, policier yu demee noonu ñooñu moom gars yi xam nañ ñu ci <laughs> wàllu ko ñu ci bari xam na ñu ci ku ci ñëw rek bu soobee yàlla daal la jox ndomba gi ndomba moom liggéey bi metti na waaye ku ci jot moom bul xalaat sax ndawal buur di la jàppale ki demal def lu neex benn waaye ke rek daf may woo di ma wax naan ma dama toog billahi wal kitaab mu ne ma dama toog fi ma toog nee na bi ñu egsee ñëpp lañ jàppam des ma ma ne ko boo toogoon boo fa doon am euh, mille années kenn du la jàpp kooku moom kuñ ko jox dañ la koy garantil beneen bi ci des dalay musal ci wàllu cat liggéey ak lu mu mën di doon kaaraange la total waaw beneen bi ci des di wax ni di ñaan yàlla mu def jàmm ci suñu réew mi di ñaanal suñu gaynde yi di leen ñaanal di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex di wax ni bu kenn découragé Sadio Mané manqué na keneen manqué na loolu du dara lu yàlla war a def dina ko def nañ sabab lu ñu war a ñaan ñaan waaw ah, ñi nga xamante ni ñoo war a dugg ci terrain bi dugg ci terrain bi ñu ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawféex di wax wasalaatu wasalaam ala rasulillahi jërë ngeen jëf suñu Cheikh